léegi mm-hmm. dalal na sa xel léegi yow euh, naka nga gisee avenir u Benno Bokk Yaakaar naka laa gisee avenir u Benno Bokk Yaakaar bon xam nga fu mu nekk nii euh, mbor buñ daan da ngay dellu ngembuwaat boo gisee le président muy woote remobilisation di parti wala les leaders di parti peut-être comme daanu nañ il faut ñu toog xool ba xam lan moo tax ñu daanu defaruwaat defarwaat ñu xool ba xam bu ñu defuwaatee ba pale lan mooy nekk après les perspectives parce que tey tey jii nii euh, yàlla mooy joxe nguur. dëgg te ñun nii bu ñuy ñëw dafa am ku ñu fa fekkoon ñu jëlee ko fa. Mhm. ala kulli àll ñun tamit keneen moo ñu fay jëlee. le pouvoir n'est pas éternel. éternel tu vois kon dans ce cas actuellement avenir benn Bokk Yaakaar man gis naa ne euh, euh, war na mën a nekk de façon positive parce que lu tax. parce que Benno defu ci dëkk bi loo xamante ne les sénégalais mun nañ ko bàyyi ba. ilaa yawmi ah. bien sûr. ah def ngeen de lan lañ def. <laughs> la ngeen def daa bëri. <laughs> non non non non xam nga xam nga euh, dëkk bi dafa tolloon foo xamante ne ni. Uh-huh. sénégalais yi ñoo sol ñoo soxla woon changement. na dem na dem na dem rek. te nga gis c'est comme à la fin du règne du comme ça xam nga des fois nit ki euh, ñu si gën a bëri engouement bi moo leen di yóbbaale am na koo xamante ne jóge na këram sangu ba set dem ci urne yi mu voté mais candidat bu muy voté alhamdulilah luy programme am. ko sax. gëmu ko sax. Mhm. des fois ñu ne nii mbooloo bi wala yuuxu yi wala engouement bi kese moo lay yóbbaale. mais bul sous tamit. loolu non mais loolu ah. loolu loolu loolu am na. koo xamante xamul la moo tax mu voté diw. loolu mun naa la wax ne 3 millions xaw ma combien de millions sénégalais yi ñu voté ñu xam. programme candidat yi boo leen compté motuñu 101 millions. Hmm.